بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokki fi teew ak mbokk yi may seetaan bi yëpp di gàttal samay kàddu rek di ko jëme ci wàllu mbindum alxuraan ma bëgg maam ci xalaat lool ne eh, war nañ cee gën a góorgóorlu ndax mooy teye alxuraan ndax am na ci ñi nga xam ne ñoo doon def concours bi am na ñoo xam ne tey eh, ba ñu jógee ci daara ja yàgg na ba tey ji ku leen tariloo alxuraan ñu tari ko te lenn mayu leen ko lu ludul eh, dañoo toppoon alxuraan topp ku topp gu wér mooy ginnaaw bañ ko mokkalee dañ koo beqi beqi jàng le xam nañ ko bañ ca jógee bind ay kaamil euh, bind ci ay kaamil yu xaw a takku loolu mooy li nga xam ne moo leen may tey jii ñu mën a bokk ci konkur bi euh, ndax naam ñi mokkal alxuraan bari na euh, waaye nag ku bëgg sa alxuraan sax boole ca bind dana ko tax a sax incha allah loolu laa amoon lu may wax ci wàllu googu jërë ngeen jëf. بنعمة ربك بمجنون